tontu nee na ci àddina. alors alors bonjour. bonjour. donc nous c'est vrai qu'aujourd'hui le thème qu'on a pris uh-huh. c'est Halloween. mais on est un parc en uh-huh. et un uh-huh. parc les jours. de à 19 365 jours sur la, de, de l'année, quoi. Uh -huh. Euh, par, le calendrier uh mm-hmm. -huh. des Donc, c'est-à-dire qu'on mm-hmm. voit, quand, quand c'est Pâques, on fait la chasse de Pâques. Mm-hmm. Su fekkee ne taajabon dafa jot, ñu ñu def taajabon. Su ndawanal ñaan ndawanal jotee, ñu joxe ndawanal ci biir parc bi. Les parents viennent avec les enfants. Et quand c'est Halloween aussi, on prend, voilà, on se on se le thème de d'Halloween. On ci jeux yi ci déguisement yi ci activité yi et tout ça parce que parce que ñun ce qu'on voilà ce qu'on veut mmh. <laughs> ce c'est d'offrir en fait des temps euh, des temps ludiques ci aux enfants et surtout accompagner des parents. mais Mariam est-ce que xam nga ne tey sama doom bu jigéen ku ndaw ku soppi rek dafa yeewu tey na ma aujourd'hui c'est Halloween. waaw mu ne dafa bëgg a déguisé wu ma ne ko waaye yow. <laughs> kon kay dinaa ko indi si samedi samedi dimanche. Mhm. nous laisse les gens faire leur Halloween. Mhm. parce que nous on s'inspire du thème. pour pour offrir euh, un événement. Mhm. un événement à passer en famille. donc on va faire nous le samedi et le dimanche. donc toute la journée au parc. mais on prend aussi comme il disait moom boole ko ci a ko ci. ci wàllu déguisement yeeg yooyu. voilà muy mhm. simb ngay ndeyi par exemple. Mhm. simb ngay ndeyi ñun ñoo ko. nga ne simb simb lion simb <laughs> lion. non simb simb lion simb lion. bañ naa duma ci delluwaat. <laughs> <laughs> du ma ci donc dañuy jël simb yi jël jël jël euh, voilà les folions et tout ça donc à chaque fois on essaye de de xoolal ouverture <laughs> uh-huh. comme le disait Senghor ñun on aime bien on aime bien ce ce ce ce thème là voilà on prend ce qu'on a suñu richesse mm-hmm. dem ah, seeti keneen tamit richesse am <laughs> voilà mais nañu ñëw nañu ñëw nañu ñëw andi naa andi naa ay ay gone uh-huh. waaw mais mais juste rappeler que nekk euh, Halloween dañ koy fêter chaque veille Toussaint euh, suñu nee Toussaint mooy la fête des morts donc c'est demain 1er novembre donc 31 octobre bu nekk la ñuy fêter li nga xamante ni moom mooy Halloween c'est important donc de de de préciser ça ils font peur so scary comme on dit so scary voilà on joue on joue à faire peur on joue à faire peur non mais mm. bu dee lii moo waral lu dee ak sama laaj origine bi. man loo bëggoon laaj en fait origine bi laa bëggoon xam quoi. bon je peux pour comprendre tout. en fait Halloween ça vient un peu d'Hollande ñu ñu dañuy wax ay États-Unis et tout. les Irlandais ak Écossais yi ñoom ñoo ko indi États-Unis parce que en fait ñoom euh, veyu veyu euh, Toussaint yi dañ doon wax que ne que moor yi dañ doon jóg donc euh, ci loolu la ñu symboliser li nga xamante ni moom mooy. voilà ay nit yu dee la bëgg donc c'est les oui Seydina Mouhamad <laughs> donc ce sont les les écossais ce sont les écossais ak ñi nga xamante ñoom ñooy irlandais yi ñoom ñoo ko indi kon ca États-Unis loolu nag euh, voilà yàgg na waa États-Unis euh, daal di koy euh, rek indiwaat donc y a la citrouille donc oui y a les citrouilles y a les <laughs> en fait les ah, bonbons voilà nous par exemple on va faire des chambres noires ah oui la chambre noire où tu vas rentrer dans la chambre te xamoo ndax am na lu nekk ci biir wala déet ñu dafa ay labyrinthe yoo xam ne on les appelle les labyrinthes mystérieux donc da ngay dugg ci biir labyrinthe bi doo xam fu bunt bi féete nga war a gis bunt bi en fait on c'est une façon de de jouer aussi avec euh, Avec nos frayeurs, quoi. <laughs> ouais, c'est bon. En tout cas, je t'attends. Là, je suis rouge, là. Ah, mais là, je suis rouge. <laughs> En tout cas, euh, trick, or, trick or treat. Donc, euh, on va venir le faire avec les enfants. Trick or treat, c'est, euh, voilà, euh, c'est, est-ce que c'est une farce ou des, des friandises les On va tous venir avec nos enfants. Et puis, il y aura Donc, des euh, friandises aussi, ah, oui. Général, tu fais bien de le dire. Parce ah. bonbons. Uh-huh. donc xale yi à chaque fois qu'ils font preuve de courage. Oh, ñu jox leen ay bonbons. Uh-huh. si les parents il y aura des énigmes à résoudre par exemple si les parents euh, les aident à résoudre les mm-hmm. énigmes ñu gagner ay mm-hmm. bonbons pour xale mm-hmm. yi et tout ça. et les jeux les jeux à gogo à partir de 500 francs donc euh, venez parc de Hann donc euh, on va fêter Halloween pendant le week-end ñëw leen ngeen déguiser xale yi ngeen kaaf ngeen foo ngeen ree suñu suñu culture c'est-à-dire que fekkul baax Sénégal mais fekkul baax Amérique tamit euh, parce que nee naa leen écossais yi ak irlandais yi ñoom ñoo ko fa daal di euh, indi mais puisque feetu xale yi la dañ leen di jox bonbon ñu déguisé wu ñu béggee daal euh, donc pendant deux jours pendant deux jours <laughs> toute la tout non non là là là <laughs> Alors, euh, on va souhaiter.